الحمد لله الحمد لله حق حمده امرنا بالنيه واخلاصها في عبادته فقال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء واشهد ان لا اله الا الله وان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وحبيبه فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأسنى خديمه وبعد أيها الإخوة المؤمنون إن الله تبارك وتعالى حين خلقنا لم يطلب منا إلا أن نكون له عبادا اختيارا كما كنا له عبادا اضطرارا وهذه العبودية لن تتحقق إلا باستحضار النية في كل صغيرة وكبيرة وصرفها له تعالى خالصة يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه البخاري إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ويقول الشيخ الخديم رضي الله عنه في إحدى وصاياه العامة يا من يريد الفوز قدم نية من قبل سعي في العلا المرضية ثم شرحه بقوله إذا أردت أن تفوز بمرادك في الدنيا والآخرة فقدم النية قبل السعي في الصالحات وقال في وصية أخرى لا تنس نية لدى كل لياد فإنها تجلب أفضل أياد فقال في شرحه ولازم النية قبل كل عم قبل كل قول وعمل فإن راعيت هذه الكلمات ربحت وقال بعض السلف رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النيه والنية عباد الله تصير العادات قربات تترتب عليها أجور ومثوبة وكيف يكون ذلك؟ يكون باستحضار نية مشروعة عند ممارسة أي فعل عادي مباح فمثلا حين تتناول الطعام أو الشراب تنوي به التقوي ثم استعمال تلك القوة فيما يرضي الله تعالى وحين تنام تنوي به استعادة النشاط واستعماله في مرضاته تعالى وحين تتزين بثيابك الجميلة تنوي به ستر العورة والتأسي به صلى الله عليه وسلم في في سنة التزين وهكذا هلم مجرى وبهذا أيها الإخوة المؤمنون نستفيد من سائر ممارساتنا وتصرفاتنا أجورا وثوابا غير أن النية الصالحة لا تغير المعاصي عن مواضعها فلا ينبغي لأحد أن يفهم ذلك خطأ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات نيوغي سانت سون بروم تبارك وتعالى سانت غا يالا اك جمم جا موم مي نيو ديغال نيو تيو لو تا ديكو سلال سي جامو اك نانغو غين كوي نانغول دي سيرنا امول بن بور با يوي جامو بودول موم دي سيرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ab jaamam la di ndawam di soppeem di tànneefam ñuy ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu dolli xéewal ak mucc ci moom ak i jabootam ak i saxaabaam ak ci liggéeykatam bu mag bi bokki jullit yi sunu borom tabaraka wa taala mi bind jam ñépp moom leen moom gim leen moom ajuwut ci seen coobare ay jaamam lañ bu leen neexee ak bu leen neexul waaye bi amee ba noppi nag dafa sàkkuwaat ci ñun ñëpp ñu nangu njaam gi suñ digg ak moom doon ay jaam ci moom def ko muy suñ buur doon suñ boroom nangu googu nag lay tax mu mën a nekk mooy ñuy teewlu yéene ci lépp lu ñuy jëf mu néew mu bari mu rëy mu tuut te yéene jëpp ñu jooyal ko ci moom sunu borom tabaraka wa taala jëmmam ja rekk tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci xadis ne jëf yëpp ci yéene yi rek lay takku ci lay aju yéene yi rek la ci suñu borom di fay képp ku jëf yit lam jëf lam ci yéene rek la ko ci suñu borom di fay cheikhul xadim radiallahu anhu ci lenn ci ndénkaanam yim jëme ci jullit ñëpp wax na ca ne yow mi nga xam ne da nga bëgg a am li nga soxla lépp te di ko wut te mënoo koo ñàkk ci sa adduna ak sa ëllëg alaxira del fexe bay jiital yéene ju sell ci jëpp jëf ju baax jooy jëf ju mën a doon wax janeen ndénkaan loo xam ne daf caa wax ne bul fàtte mukk ndén bul fàtte mukk yéene ci jëpp jëf jooy jëf wala jëpp wax jooy wax daa di cee wax ne baat yi ma la dénk boo ko sàmmee te wattu ko da nga jariñu adduna da nga jariñu ëllëg al axira amoon na it lenn ci nit yàlla yu jëkk yi ko waxoon ne bari waa na jëf ju tuuti ci bët te rëy lool ci sunu borom te yéene rek moo koy rëyal waaye bariwaane waane itam jëf ju rëy lool ci bët te tuuti lool fa sunu borom te la koy tuutal mooy rek yéene jang xane moo ko lal kon bokk yi loolu day wane yéene lu am solo la sëriñ bi radiallahu anhu wax nañ ne mas naa am ku ñëw ci moom jóge ci benn gox ci goxi réew mi di ko diis boppam wax ne dafa bëgg mu tërbiye ko ci yoonu yàlla ba yeggale ko fa mu yeggale góor ña mu toog ab diir mu yónni ko ndab ne ko demal indil ma a gële mu jóg dem ñëw teg bi mu ko tegee mu ne ko analoo ci yéene mu ne ko dara analoo ci fas mu ne ko dara mu ne ko yow de kon daa mel ne fa nga jóge da nga fa ëpp coow waaye ëppoo fa pas-pas daf ko bëgg a jàngal ne ko jëpp jëf jooy jëf rek ci àdduna lum niru nu lu tuur wala lu doy di bumu tee nang calal yéene bu dee jëf ju baax la yéene bokk yi jëf yi ñuy jëf sax nga xam ne ay jëfi aada lañ koy tuddee day yéene doole ju ma am tax na da koy soppi mu doon ay jaamu yàlla yoo xam ne nit ki da cee amee tuyaaba man cee amee ngërëmul sunu borom waaye loolu nag lan moo koy maye li koy maye mooy lépp lu nit jëf te lu yàlla nangu rek ba ci jëfi aada yi mu teewlu yéene ca jamono jam koy jëf jamono ji nga tiimee ndab di xéewlu wala nga tiim ak naan di ca xéewlu na nga ca yéene man caa dëgërloo ba boo noppee kattan la nga ciy jële nga man koo defaat ci lu gërëmloo sunu borom jamono ji nga nekkee ci kër-këri adduna ba coona dab la nga war a dallu booy dallu dallu googee na nga ca yéene man caa amaateg cawarte boo jógee ba mana a nekkaat ci borami suñu borom yi te def ko ci lu borom gërëm jamono ji ngay sol sa yére it sër yi ngay sol bu ko sol rek ngir ne nit ñi dañuy soli sër nga sol ko waaye yéene ca muur ci saw yaram li nga war a muur yéene ca it roy yonent bi salallahu alayhi wa sallam ci nim daan soloo yére yoo xam ne yu ñu mën a gis la ba ci yow mi yor njaboot di leen dundal di leen jox dépense waxtu ne ak la aju ca fere ya ngay fere ci ñoom yépp bu koy def rek ngir ne ñëpp a koy def nga di ko def wala njaboot geew lañ ci xaar mënoo ko ñàkk def waaye def ko ngir taxaw ay jaami sun borom taxaw njaboot gi la sun borom bolel. yow mi nekk ci kër di soxna di togg di fóot di kër kër di sonn coono ya ngay daj kër ga bu ko def rek ngir jàpp ne warteef la wu nekk ci sawloos ko ñàkk def waaye ko def ngir jubloo taxaw ak dimbale njaboot ga nga xam ne ñoom nga jaboote ak borom kër bala yàlla booleel ba ci yow mi liggéey ak secteur boo man di liggéeyee liggéey ba ngay liggéey bul jàpp ne rek da ngaa war a liggéey ngir wut rek loo dundee mu jeex loolu tuuti na ci yéene juñ war a ci liggéey waaye yéene ci jaamu yàlla yéene ci taxaw sam réew yéene ci taxaw itam sa doomi réew ak jaami suñ borom yi ba fa nga leen féete nga mën leen faa taxaw taxawaay ba nga leen fa a taxawu loolu bokk yi bu ñu ko defee te di ko sàmm ci mboolem suñuy jëf ak suñuy wax jëf yeeg wax yépp lu ca doon loo xam ne lu yàlla nangu la rek dañ cey mën a am tuyaaba ju rëy joo xam ne ëllëg duñ ko foog sax waaye nag mat naa sédd te bàyyi xel ne yéena nag ak doole ju mën a am moom yëggut mukk ci nit ki def lu yàlla gërëmut ak mooy yàlla ba noppi bëgg na da ca yéene lu baax di ko ca séentoo am loolu moom yéene mënut loolu yéene lim man mooy fekk ak jaamu yàlla mu yokk ko wala fekk jëf joo xam ne ju yàlla nangu la te muy jëfi aada mu wolbatil ko nit ba defal ko jaamu waaye munta soppi ak mooy yàlla ak topp kon bu kenn déggee waxinu yonente bi alayhi salatu wasalaam jëm wax ne jëf yëpp ci yéene aju tax nga jàpp ne kon ba ci jëf ji nga xam ne ak mooy yàlla la saxit boo ci yéene lu baax rek am ko ca loolu taxul muy wax bokk dayob yéene yegg na sax ci weesu na sax soppi jëf yi aadamu yi jaamu yàlla waaye yegg na ci nit ki sax bu waree jëf wala mu bëgg a jëf te ngànt gaar ko ba mënu ko yéene dana mën a wuutu ci moom jëf yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu jógee ci xeex bi mu mujjoon a dem muy xare bi mujjoon a dem muy xare Tabuk ànd ak saxaabaam ya bay dëgmal Madinatu Munawwara dafa jekk-jekk wax leen ne leen madina gii ñu dëgmal day ay gaaya ngi fi yoo xam ne tukki bii ñu demoon amut benn jéego boo leen ci jéego lu dul ne ñoo yéen ko àndoon xur woo leen tabb it ñoo yéen ko àndoon woo leen génn it ñoo yéen ko àndoon saxaaba yi daan na ko te booba ñoom ñi ngi madina gii mu ne leen waaw booba ñu ngi madina de waaye li ko li leen ko may mooy seenu des madina du seen coobara waaye ngànta leen fi waaye am nañ yéene def lii ngeen def kon mooy yéene foofu la yegg sëriñ bi radiallahu anhu ci net lib kenn ci mag ñi sëriñ ma bàññi njaay nee na sëriñ bi waxoon na ne li yàlla may doomu aadama yaara ci gën muy yéene ak tuub daal ne ana nan lañ nan lañu ci gënee mu ne sunu boroom lim digal ab jaam lépp amul benn jaam boo xam ne mën na koo matale waaye nag boo ci defee li nga man lépp la nga mënut nga di ko yéene suñ borom dalay defal la nga mënut mu mel ne li nga jëf daal ne tuubit sunu borom lim tere ab jaam lépp benn jaam munta matal lépp ci bàyyi waaye boo ci bàyyee la nga man lépp la nga mënut nga di ko tuubal suñ borom foo toll suñ boroom day def loole ngay tuub mu mel ne la nga defut ñoo ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu tawféexal ñu ñu bokk ci jaamam yi teewlu yéene ci lépp lu ñuy jëf te di ko sellal te jëmam rek tax te di ko rafetal di ko ñaan mu musal ñu ci mbugalum sawara may ñu yiw adduna ak yiw alaxira sàmmal na sunu ngëm te defal ñu aw yiw ci suñu jëf yëpp الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى عباد الله فشأن النية أرفع من تصير العباء من تصير العادة قربة فحسب بل إنها تقوم مقام العمل عند التعذر فهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر فاللهم اجعلنا من أصحاب النية واجعل اللهم نياتنا كلها حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزال